alaaj Papa Diagne day mel ni ku tàkkali ko ak sagoom loolu lan moo koy def ci mbër Bécaye dafa am lu ma fàtte woon a bëgg a wax ndax Pape Diop Basson mm-hmm. ay doomam dañ koo jël yóbbu ko Italie waaw pour mu faju ji mm-hmm. bés muy dem ci la bi gaañu ci la sa yaay gaañu wax nga dëgg ñu yóbbu ko armeel ya keroog bi Basson di dem dañ ko jàppoo pour mu dem armeel ya mm-hmm. woon ma sànq ci dix heures méttit lu diggante moom Mbaye Gueye waaw ak dem bi Mbaye Gueye dem ci gannaaw xaritam jaale ko ca bu ma demee ca baas ba mhm. wax naa ko fa dëgg la sànq ci deux heures ma ne ko bekkaay daf ma invité waaw spécial Mbaye Gueye dëgg la boo fa demee nuyul ma bekkaay ak ñi nga toogal ñëpp waaw te jot xamal leen ne la ngi koy jaale waaw te jot naa pap mu ngoog ëmma seen it danaa ko waxal méttit lu na Mbaye Gueye ab demam tey jii Mama seen la ñu invité woon l'œil du tigre. merci beaucoup Ama Baldé mais après ni ko bàyyi ko ba. Ama Baldé it prochaine waaw. métti lu la demu Mbaye Guèye. ndeysaan jooy na ko. Mhm. ci lu ma xam man. booy Boy mhm. moom ñëw na ci dëj ba. ak papaam ak yaayam ak yaayam. ak papaam ak papaam ñëw nañ fa démb ñëw na fa. yaayam ñëw na fa. yàgg nañ fa wax dëgg yàlla békaay. nga baal ma rek ma wax benn portion. waaw waaw bu ndaw ay ca Mansour. gis nga saraxu tey bii. Mhm. bu Mbaye Guèye bii. waaw daf ma ak Rasulullah Mansour Mansour jàpp ci bu bul jooy nag dama xool ay nit yoo xam ne si dañ doon ànd ak mbéykay waaw doon ay ponkal doon ay ponkal bari doole xew mhm. ci jamono tey ku ñëw ci dëj bi ñii dañ leen a téye ñuy soox loolu ah, mooy àdduna ñii dañ non li ma gis tey musuma gis Aline Fall dama ko gis tey mu yor yat Aline Fall ba Siphon Robert bëri mbéy gee bëri bu métti ba dama ko gis mu yor yat di soox yaa ngi dégg Mbaye Cissé tey bi muy ñëw katti moo téye ci ñaari loxo yi waaw Mbaye Gueye numéro deux tey dama ko gis booy làmb gis naa ko tey sàmba Diagne gis naa ko tey ñooñu ñëpp tey boo leen xool da nga xam ne yàlla dafa dénkaane mayewul dara ma xool leen tey seen jëm ak li ñu def ci àdduna fan gudd naa leen soppi mais tey demu Mbaye Gueye bi demu Mbaye Gueye tey bi saraxu tayam bi daf ma marqué ndax xeeñal na lu bari ndax daf ma jox àdduna fi mu war a mujj jox ma àdduna tey tey sarax bi mbéy géey bi métti nañu. njàngale la mais daf ma jàngal. àdduna ci àdduna. waaw pour ñu war a préparer ñun. waaw ndax ku sa mag dem. sa baay dem sa baay dem. booy ba nga def sa préparation. sa préparation xam ne sa doole ngi dem. bilaay nga dëgg. béykat yi li ñu mënu a mënatuñ ko Moustapha Guèye mii li mu mën a ko. dëgg la Papa Guèye ma ci Italie li mu mën ko. Mhm. tey ku xool ñu doon ànd ak mbéy géey tey yëpp. ñu doon gis leen ñun ni nu mel toll. ni ñu mel tey Ibou Ndafa tey bi muy ñëw bekk la ak nit ñu meloon ni ñu toll woon loolu moo ma jooyloo ma xam ni rek àdduna yàlla dafa dénkaane mais mayewul. mais mayewul ah, loolu nag euh, damay rebondir foofu. waaw li wax dëgg la yàlla wax na ci alxuraan ni bu ma leen may fan gudd naa leen soppi. Mhm. waaye nag li problème bi dëgg-dëgg mooy sportif sport de haut niveau. Mhm. moo laaj suivi médical bu ñu amul. Mhm. Ah. amul médical bi mu laaj. amuñu ko. amuñu ko. loolu nag koo ci amul nag boo jë ba jëm mag. day feeñ. amatoo retraite mënutoo entretien sa bopp na mu waree il faut mu feeñ ci yow. waaw bu demoon ci. dama mar kii li mu wax téere la. li mu wax mais mais yàgg naa ko man. lu ma seetlu la ci biir. mais man yàgg naa ko dama ko toujours xool sportif yi toujours dëj bi tey waajal seen bopp. dëj bi tey dama ko xool ba mu jeex ñi ñëw arrivé yi ma gis yëpp. dëgg la yëpp à l'époque ci ay mbéy ga yi. bu Mbaye Gueye masaan taxaw ñu di ko taxaw ci wetam sotti ko sow ñu taxaw si wetam boo ci doo koo ciy xool da nga koy xool ca kaw mais dëgg la mais tey xool leen ñii ay yat la ñu ñëwee xoolal ipongaare bi ma ko gisee tey ci tey <laughs> dama yiw dama yéemu dama xam ne yàlla dafa dénkaane mayewul lay ab dafa dénkaane yooyu dafay doon yoo xam ne ci yu marqué dit la te dañ ci war a jàng wéy waaw Mbaye Gueye nag ko xamoon la mhm. ndax jaamu yàlla am fooyu ko liggéey li mu liggéey ba am ko tuubaa mhm. bu ko liggéeyal du am bis am mais dama lay seedeel ni gàmmu Tiwaawan bu jotee du ko tardé. Mhm. sama kër la nekk deux jours. waaw waaw waaw. xale lañ a wax Pape Mbaye kañ lay wax. soit ci kaamil bi mi ngi kurusam. waaw deux jours lay def de retraite la bu jëlee kaddu mooy bu ñu toogee saagalante rek pour mu wax kàddu lu rafet. lu rafet delluwaat ci kurusam delluwaat ci kurusam. alxuraan tamit nag ku ci yàgg ko yàlla mayoon ci alxuraan la. dëgg la na ko. topp na ko di ko nafar ba yàlla may ko ci niveau boo xam ne alxuraan ko jàpp mu jàpp la. donc xamoon nañ bis bii dina ñëw. bàyyoon na ko xel mbéy gi daawul jëw. déedéet. lu mu la wax moo ne ci moom mosuma dégg mbéy gi wax kenn kàddu gu ñaaw. waay te mag mbéy gi nekk nañ waxtu wu nekk. waay waay toog ci nit moon ko gën a wax ci moom lu bon. léegi mhm. du genre amul woon. Euh, man dama ko fas invité benn bés. keroog maa Bécaye mii ñoo ànd. xaw ma fan lañ dem guddee ñu may woo téléphone Mbaye Guèye ngi fi man leen dina bu dee may ñëw mënul sax dina ma xaar sama directeur woo ma bàyyi ma grand foo ne ma ne ko maa ngi ci yoon bi mënoo Mbaye Guèye nga lay xaar ci ngoon ba tey ma ne ko Mbaye Guèye Mbaye Guèye ni ko buy ñëw mënul sax dinaa ko xaar ndax émission bi il faut ma def. dëgg bi ñëwee bi ñu defee émission bi ba pare ma ne ko añ yéeg nga nuyu bàyyi ma bi ñu yéegee mu jàpp ci rampe bi xëxët. defaat beneen pas jàpp ci rampe bi xëxët bambar na ko mais grand mënu ko ah mënu ko mais qu'est-ce que tu mbay na ko je suis malade ko dama lay boole professeur Seydou Nourou bi dëkk Liberté 6 extension te nekkoon directeur hôpital Abass ndaw il te prend en charge comme ça euh, euh, il va te prendre comme ça man en tant que directeur Sud FM man maa lay jël en charge parce que yow ci kër gi nga bokk dañ yàgg di la invité depuis bi ñu nekkee ville ngay ñëw tey jii ñu invité la nga jóge Fass Mbao bu fii léegi dama lay mettre en rapport avec Seydou Nourou comme ça moom mu jël traitement bi ñun ñu fay ko man dama waaru sax ñu génn mbéggee ni ma Pape Dieng man ko ah man ko yow yàlla def la may loo xam ne xamoo ko yow ñëpp la bëgg mhm. Seydou Nourou jël ko en charge loolu moo tax mu ñëw dëkk si kër Moustapha Guèye pour bañ tarder rendez-vous yi di jóge kër Moustapha Gueye parce que Moustapha Gueye ak Seydou Nourou ñoo bokk koñ. tout à fait juróomi paa lay def pour egg. dëgg loolu moo tax mu nu interné woon ko kër Moustapha. puisque directeur Sud FM Baye Omar Gueye moo ko jël en charge pour Seydou Nourou di ko defal traitement. dëgg la te loolu am na ci lu bëree bëree bëree. mais ci bëri du ko wuti. du dem ci nit ñi du dem ci nit ñi. béykat di nga leen Moustapha béykat yi wax kenn soxla boo koy dimbalee ak dem xam nga lu Mboye Naar Fall daan wax. waaw daf naan téye ne pour lutter. waaw. waaw ah, Moustapha Gueye na ko. waay xamul dara lu làmb mhm. du jëw amul jotu wax mun na fi toog suba ma ngoon kurusam la yore woo lu mu jàng alxuraan du wax te li Moussa wax dëgg la day bindal boppam alxuraan gàllaaj yu bari moo ko daan bind wala mu recopier ko wala mu recopier ko waaw dafa jàng bari xam-xam te Bécaye li mu gën a marqué ci moom ndeysaan dafa bëre ak Double Less combat bu jëkk ba ndax saa yu daan bëre bu pare sama kër lay ñëw bu bëree ba pare bu sangoo ba pare sama kër lay jubal directement ñun daan kook ñu bañ ko daan dee ñu sax fekk ñun ñëpp tëdd waa kër ga fay mu taal lamp yi mhm. ñun sama yaay maire quest que yaa maire bi nag ah de mbay ñun ñëpp tëdd ndax sa defet mën ko waay génn xaalis ñu attaaya jëm jëndi dibi mhm. nekk fa ñun ñëpp di wax ba bër set bi mu bëri ak doubles premier combat bi que keroog bi muy dem di signé ñu combat bi man ak moom ak Lamine Naar ñoo ànd bi ñu demee ba euh, clinique ñoo ki fa bi ak sama xel man leen man du ma dem ndax boobu délégation du tourisme ñoo tëgg combat bi ñoom Pape Xar Cuun man ko man du dem ndax sama xel dalul ci bëre bi te Double Less ni mu toll man du ma dem làmb ja mooy premier bëre ba mu bëree ba ci guddi gi mu ñëw sama kër ni ma pap ma ne ko ah mu ma jël nga temps bi ma ne ko waa ah, jël naa ko mu ne ma ñaata temps la ma Double Less daanee ma ne ko peut-être deux minutes deux minutes trente mu ma demee jël sama revanche keroog kër Ameth doy leen dem ci bi ñëwee man ko mbay comme que Ahmed gis nga plateau ñëpp tëdd na lamp yëpp fay nañ ndax defet léegi nag kii nga xam ne daj na ci combat bi mu nekk lan nga koy wax mu ne ko damay jël revanche en moins d'un an te bi su ma daanee en deux minutes trente man dinaa ko daan en une minute trente xam ne mbéy moo am jox xam naa wax jooju mu wax sama kanam ak Ahmed Ndoye moo tax ba adul bi sifflé mu attaqué ko mu attaqué ko léewtoo ko ca kaw léewtoo ba ca kaw wàcc tuur ko waaw bëre ba jeex mu ñëwaat sama kër ci guddi gi mu yónni ko mbay mu ne ma ne ko kenn du yow ànd naag façon nit bu nekk waaye ku mel ne yow musuma ko gis yaa am jom yaa bari ngor ñu jóge fa ci guddi gi ñu invité ñu ñu dem Sandial kër Amadou Assane Ndoye keroog maire Foss dafa woo mbokkam yëpp ñoom Adaat ñoom Cheikh ak xale ñu jigéen ñi ñoom Nafeek ñoom Adama ñëpp ñoom day fàttu keroog dañu fa dajaleel xaalis ak ay basin ba taabal ji fees. ndeysaan mënu ma jëlal ma tibb jël. bi ñu jëlee ba dem ba sama kër ñun ñëpp ñu toog ak gars yi ma génn xaalis bi yëpp teg ko xam nga lu ma wax Momar. Hmm. li ma xaalis bi yëpp yaa ko moom man du ma ko laal. moo xam diggante géer ak géwél. saa su du ngor ma ne ko mbay lii du ma ko jël mënu ma jeex ma ne ko ah mënu ma xaalis bi ah ko déet loolu lii moom bu ko xalaat. fexe ba ñun ña toogoon ñun ñëpp bari woon nañu gis nga ñoom Lamine Naar ñoom Badou Ngom ñoom Alphonse Sangor. ñoom Cheikh Tidiane Sy mu sëñ Moustapha Sy mm-hmm. donc suñu groupe bi dañu bari woon. ay ñoom Tolier Diop. ay ñoom Birahim Gueye ay ñoom maam guñe ñang xaalis bi noonu lañ ko séddee ñun suñu biir bu ko nekk am ci nga xam ne kii mooy gor mooy gore waaye li mu liggéey ak li mu am ci làmb bu ko dencoon tabax téeméeri immeuble la ñaar waaw mais rus naa lekk bàyyi mbay si sa nag nañ koo jaale dinaa papa kan ndoop nekk fi te papa kan la àndal ndoop yoo xam nga mm-hmm. baax bu baax yoo xam nga chasman ba bu baax xam nga Assane Niane bu baax xam nga Faga bu dëgg la bu baax xam nga Moussa Diop Moussa Diop baax la xam naa ko ñoo ak ñoom Bacheli mm-hmm. loolu doon groupe bi sa ndeysaan su bëri gën nañ àddina mhm. yàlla leen fekk àjjana amiin yàlla bala waaye ku mës sa ànd ak moom rek jox na la cër ak respect boo xam ne bu amee ndam dafay mel ni ndam li sa ndam la dama li la yàgg naa ànd ak nit mais góor gu mel ni mbéy gee bëriwul gëmul xaalis gëmul àddina gëmul matériel loolu yëpp gëmu ko lu ñëw daf koy teg séddoo ko nit ñi loolu la ko am kon loolu defe naa ne Moustapha li mu wax ni ma yow mi man mi ma daan ànd ak moom li mhm. mu ñu na ko jógal mu jóg man na ko succès bi nga am ak tur bi nga am ëpp na faas mhm. jógal ñu dugg ci dëkk bi dëgg la fu ne dugal naa ko fu ne te fu mu taxaw it wax ko et au bon moment ku gore oh. <laughs> il a fait il a ah, waaw ñu ñu ñu ci loolu ñu déglu wala ñu xool alaaji Vieux Seng fay ndeysaan ah, moom tamit digganteem ak faas mu daan tëggal ah ndaanaan tëggal mbéy gi ah, moo daan tëggal xel dem ci Ismaïla mi daan tëgg moom tamit Ismaïla Ismaïla Mbaye ndeysaan waaw et puis Mamadou mbay bu nu mënee xam fan la nekk actuellement nii. Mm-hmm. waa ñu déglu élément bi dellu si assurance Diop doom yaay Ndeye Souleye Ba doom yaay assurance Diop. maam góor gi kay ba mu ba mu gimmee ma gimmi ku ne xam li nga war a def ah ak li nga war a wax ci laa commencé dëgg dëgg mbay géey mu ci jamono bu ma mbay géey yi war a bëri tey ñu ngi war dem lamba jet heure nangam ñu ne mbay géey yëpp di ñëw kenn xamul katanga lay génne kenn xamul fu mu génne. gendarme dootul am jàmm policier dootul am jàmm yaa ngi dégg amateur dootul am jàmm. yow yow mi ko war a tuusal foofu nooy def. foofu foofu. da ngay taxaw rek xaar. koy taxaw xaar rek di ko déglu. mais mbay gi ñoom fu muy génn fu muy génn fu muy génn nga réglé rek yow. bëgg su ko mën a ñu xeet boru katanga wala mu jaar ëjj ba taxaw ñu ne Mbaye Guèye nga ñu jur mbaare bukki mu ne lay cib na cib. waaw hura daggida hura daggida daggida batak hura daggida geen ne hura daggida hura daggida daggida batak hura waaw mu talal xibla bi sangoor gi talal beneen xibla bi sangoor gi talal beneen xibla bi gi tër ko suuf ñu tuuf uraan gin xeex sad uraan gin xeex sad yeew ko nag benn place mm-hmm. xale yi gin sa tambax uraan tambax cin tambax waaye tuus lu tegu ci yoon sax dootoo ko dikk ndaanaan ndaanaan a ngi noonu dégg ko ci ci gi rek dëgg na fi tuus mu rëy ah, moom tamit yàlla na ko yàlla xare àjjana yéesal ah, yi noonu xam nga li mu wax nii moom laay nettali démb alaaji Papa Dieng li tax li ma booleeg mbéy mhm. man booy bambara moo nekkoon sama mër Mansour <laughs> ma ñëw ci làmb Robert Mbaye Guèye comme que Mbaye Guèye daan na Boy Bambara ma faral Robert. waaw <laughs> ma jógee sama kër Grand Dakar booba bu ma amee quatorze ans treize ans ci la yem maasu yow ma ma ma ah ma ñëw toog ci tribune bi duba lees ndeysaan maa ngi koy maa ngi koy mi ngi toog di sol pantalon ak chemise toog ci sama wet mais ni ma toogee ni rek. mbéy gay yegg si génne fi jour di génne. <laughs> ak sol sama toor bi. ak firi bi gars yi daw. gars yi daw mu takk sengoor gi. ñoom sën ñëw ba ci poto conteneur bi yëkkat rek sas maan sotti soow mi. <laughs> li paa bi wax dell. ran gi dat ran gi <laughs> xoolal ma bàyyi Robert bañ de. ci saa si ma bàyyi Robert. faral mbéy gi nga ci moroom parce que. spectacle bi aar spectacle boobu ma gis aar bi ma gis. soow meek tëgg mi. Sabador bi Senghor gi. day dëgg la Mansour musuma gis loolu. day dëgg la Bécaye. ah arène. waaw am na mbéy lu bare. arène de waaw. làmb li ci mbéy indi du moom rek de waaye ñi ko ci indi barewul. dëgg parce que làmb bu njëkk dafa amoon benn catégorie boo xam ñoo ko daan seetaan. dëgg mm. waaye jeune homme jeune fille ci làmb. ci làmb mbéy gi moo lay dëgg moo ko indi ñun ñëpp moo yóbbu ci làmb ànd yóbbu ànd ak kon kon mm-hmm. mais nag ba ci yàgg may faral mbéy gi di faral Robert ndax ci Robert damaa neex da dafa mën a bëre dafa mën a bëre waaw damaa bëgg Robert dafa mën a bëre ma même jour boobu na ma faral mbéy gi même Robert dafa mën a bëre dafa champion la waaw la Robert champion bu mag a mag la dëgg la ci làmb ñaara koy def bu doon te ni mbéy gi dong dafa mënoon ci ñeneen mënuñu du neex. du neex bu rek mënoon ci ñeneen mënuñu du neex. donc pour wax la ni. te looloo neexaloon làmb. li mu indi làmb. benn ngi noonu. ci engouement bi ci am. waay moo ko fi njëkk a indi. mu gondi après lay te lii wee sang wax dafa am. ak fan lay génne. kenn xam ak modernisation mais fan lay génne bis bi ma la ci jox. mooy combat mag Double Less revanche bi Pape Pape Pape Dieng di wax. Mhm. mais jour boobu li ci xew ci làmb ji loolu buñ la ko buñ la ko nettalee Double Less boobu booy bëri moom moo lay juti ci làmb ci ndax moom une heure fa boo dugg see ba ngay bàkku la lay def li muy sànneeg li muy def lépp waaw waaw ànd ak Fodé da nga fàtte keroog jour boobu bi bi bi ñuy dugg si ñu toog ba càgg rek ñun mbéygee ñëw na mbéygee làmb ji riir baa ngi fees dell ba ci suuf mm-hmm. bi mbéygee dugg see man maa ngi sama benn cousin Atoumane man ni ko mais kii du mbéygee mais da nga dof ñi ñëw ñi sotti soow man ko mais am na am na maam góor ana Pape Touré. nangam nangam gars yi bul fàtt loolu. Double Less ñëw gars yi sànni sànni sànni ba jeexal. bi tubaabu jeer muuree ko tubaabu joor lañ muuroon. Ah, wax nga dëgg. ay na wax nga loolu yaa ngi bi mu sànnee muuraay bi. waaw mbéy gi ca village kaw yi sotti ko soom esar bi wax wax nga dëgg Momar loolu dubalees bi mbéy gi dugg si amatul lu mu ko sànni fekk na sànni nañ lépp ba pare wax nga dëgg wax nga dëgg dém ko mbaa bi mu wax loolu la ca xew wax nga dëgg wax nga dëgg sa reportage combat wax mhm. mhm. tasee gis nga porte prince sa Demba Diop Mm-hmm. am na benn kër gi mu jàkkaarloo net. waaw boobu daan ak buntu gàtt ya fa newoon. waaw c'est buntu si kaat fa lañ ko dugal. lu ma lu mu gaaw gaaw dugg naa fa. ñoom maam góor gi Pape Touré daan nañ dagg yi. Mm-hmm. mbéy gi di xëm. lu feebaroon. dafa feebaroon gis nga gémmiñ gi fii ah, la dëgg la wax la nii waaw dëgg la yow <laughs> moom dañuy Momar yàgg na suivre yàgg na suivre yàgg na suivre ah, mbéy gi ah làmb mi ngi noonu ah, mais bu nee làmb tamit dafa am ku jege woon Mbaye Gueye ku ñuy wax booy làmb mm-hmm. Mansour yaa ngi koy wax léegi ah, tey jii ma nga woon foofu ci jege ko jege woon bërim ak Double Less li seen di coow mooy bi muy daana Double Less làmb làmb dafa bokkaale ci action bi waaw loolu moo tax ñu ñu ah, ànd parce que làmb daa xër bis tamit làmb moom dafa xëroon nga boobu tax fa am lu ñu daan def ci làmb loo xam ne moo daan yàq làmb ci mm-hmm. Euh, xam nga amul woon bari amul woon bari policiers yu daan nekk. policiers mën nañu daan jóg bu ñu jógee nit ñi duñ gis moo tax nit ñi daw ñëw. nit ñi daw pour gën a xool policiers yu daan jóg. boo jógee rek. da leen doon grand bu kenn jóg ñu ne ko booy bu ñu lay song ñuy jóg. waaw gis naa gis na mais booy làmb moo sol moo sol noonu moo nekk si leen moom la préparé combat bi Double Less ak Mbaye Gueye ak Mbaye moom làmb ko préparé moom ak làmb ko Mbaye Gueye jeexal ñoom ñaar ñu ko ah? bii nii waaw ah, ak Robert ba ba dellu si ba dellu si waat mais booy moom dafa yoroon feebaru dafa amoon maladie ci Mbaye Gueye ñun ñu dëkk Pikine xamoon nañ ko xamoon ngeen ko maladie la yoroon booy làmb kenn la dëkk de ci mbay géey kenn mosu ko gis ci àdduna Papa Diop bi nga xam ne si adversaire bu mbay géey la woon demoon na ba day frag nangul na booy làmb mbay géey nangul na ko ni ko kii nitu mbay géey la ba pare di ànd ak booy làmb tranquillement waaw waaw bàyyi ko tax genewu ko te biir Pikine dafa bëri woon ay supporter mbay géey waaw Demba Gaye Mbidou supporter mbay géey la woon mm-hmm. policier la woon waaw nekkoon supporter mbay géey papaam moo tëggoon combat booy séeréer ak mbay géey ca Mbàkke Ah. màggal ga yaa ngi koy rappelé am na voilà keroog nday xadi ñëg ñëw na fa lay dëgg te Pape Gueye du jaara keroog daanaka daf na ànd ah, nday xadi ñëw ñu fa ànd ak Sega ko ñu jaale ko Sega ah, Sakho waaw ñu jaale bu ndaw lay dëgg waaw ñoom Mor Guèye ñëw fa dar Mbaye Guèye eh, ñooñu ñoo dalandoo Sega Aliou Ndiaye cheval fou ñu ngi koy jaale dëgg la dëgg la ñu bëgg bi egg na ci daawul seetaan combat bu bu Mbaye dugg see béykat moom tamit. béykat dugg see mu seetaan tuus mi seetaan soow mi di ñibbi bu ñuy waaj sëgg mu ñibbi mais ñu jaale aussi sunu mag mm. maam Góor gi Njaay comme mm-hmm. Mm-hmm. ndax mm-hmm. ak Baba Sané ba grand Baba Sané walaay wax waaw sunu grand bu koy yóbbu balaay fa laa añu fa laa añu lan jaale di ko jaale tamit Ousmane Bari Ousmane Bari moo jëkk nekk président écurie bi Ousmane Bari Ousmane bu avant ndax bu ñu organiser ba organiser ba bari supporter dama leen léegi il faut ñu am équipe te il faut mu am président mbéy gi ma kan mooy président ma ko dama am benn xarit boo xam ne mi ngi nekk direction statistique mooy gérant ba bës booy bëre day ñëw indi xaalis pour ma jox la ko te loolu daf may indal ay problème xam léegi lan laa bëgg indi ko présenté la ko nga xam ko ndax li muy dacceew kenn du ko dacceew mu indil ko Ousmane Bari présenté ko mbay gi tudd na ko doom dëgg la dëgg la lu mu am fu may ngi di bëri. man nga bitim réew lépp danaa Pape Dieng ñaata la moo wax ko lépp mu jox ma lépp ma ne ko nag léegi li nga may jox nañu yóbbu jox ko Mbaye Guèye ba ñu def ko président écurie ba Mbaye Guèye tudd na ko doom ko tamit ñu ngi ko jaale ñu ngi ñu ngi koy jaale ah sa Moussa foofu la foofu sama Moussa xam nga Moussa euh, moom tamit yaram wi wérul lool nag lu ko dal paas la lu ko dal Fass la sacrifié sa vie pour Fass. lu ko dal Fass waaw pour dëggal ba fecc. Moussa Ngingue sol maillot Marseille. pour pour dëggal pour dëggal li nga wax dalal xelu supporteru Fass. Mm. même mbër yi. Moustapha Guèye mu nett li benn combat. dafa génn la la veille ou l'avant veille du combat. vers deux heures du matin mu ànd ak Madiagne seen kuy tëb ci sëg yi di génn mu xool muy Moussa Ngingue. xoolal loolu. ñoo ba def na ko. Moussa Gueye man de man de man de suba. Hmm. su ma dee daan deesal naa daan. Ah. li ma gis nii. pour wax la rek combien il motive les garçons là. non gars yi dañu bëggoon Momar ni gars yi bëggoon Mbengue sama kër guddi. <laughs> donc di gàllaaceeg ni ma léegi ko yóbbu armel man ma armel man ko man xam fi laa dëkk de mais armel yi kenn dafa dugg guddi mënu ma nañ dem. ndeysaan Jomba Jaw wallaay waaw sama grand dem mënuma léegi galaaj bi il faut ñu dugg il faut ñu tëb miir bi dugg pour dem suul ko man ko man de duma ko def man fii laa dëkk xam naa lan mooy Luc Daaw ak lan mooy fii <laughs> man te te te. a a gànnaaw keroog dafa naan ma bëggul géwél man du ma fi dugg. <laughs> ma ne géej gi bu fa dugg. géej gi sama xam dafa ko daan naxe. <laughs> waaw noonu lan lay naxe géwél. mais keroog la ah, Momar xam nga lu ñu yóbbu def géej gi day bañ géwél lan lay naxe nawet. te kat bu la ko mag waxee da ngay ragal. waaw ah, moom ñun ñii géwél yëpp loolu la leen seen yaay doon naxe man deewuma summeeku ndeysaan jël galaaj gi dugg ci biir armée yi xam ne mbéy nu ko gars yi bëggoon gars yi dee sax jaral na ëppoon na keroog njobu dafa ba ci biir def la muy def génnaat fekk ma ci biti te def ne mën nañ ko man du ma tëb béygee sama xarit la waan loolu du ko def du ma ko def koo xam ni booy ànd ak moom décision bi nekk ci moom ak engagement bi nekk ci moom ak détermination bi nekk il faut nga am ko pour mën koo jigee sinon doo mën a ànd ak moom dañuy déglu booy làmb dañuy déglu booy làmb ah moom mu def témoignage ci Mbaye Guèye Tigre de Fass ñu xool ko te dellusiwaat combat Mbaye Gueye Double Less dañ ne premier combat bi Double Less moo ko daan. waaw deuxième bi ñu ne verdict bi la ñuy xaar ba tey. deuxième bi Mbaye moo ko daan man maa yëkkati Mbaye Gueye ci kaw Double Less mhm. te ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund bàyyi la ñu bëri ñoom ñaar ñëpp ay champion la ñoon ku ne dem nga màkk ba ñëw léegi boo leen wéetee ak Double Less ngeen laaj ko akulaayu taalam wéet ak Mbaye Gueye wax ko akulaayu taalam mais Mbaye Gueye daf ko daan mais dafa jaaxal gaa yëpp ndax ni affaire bi gaawee. daawaay bi mooy daf ko dóor mu fayu mu dóoraat ko les fayu mbéy ngay fël waaw jeune bi fii la mu nii mbéy ngay laxu si ndigg li lees mu ko jàpp mbéy ngay bës jeune bi wicc ko liem moo dóor moo jiitu suuf ak wet gi ñëw na sama nekk du lees mu ne ma sama combat ak mbéy moo gën a métti si li ma dal ci àdduna bëgg moo na ba rek moom mais mbéy ngay ko daan parce que lees benn prise la bi muy daanee. mais combat bi mu daanee arbitre bi ne gisul jël. waaw léegi Ndakaaru nu ñu def ñoom dañoo sibilé. Ndakaaru dañuy dañuy sibilé dañuy fab Mbaye Gueye. Hmm. dañuy ñëpp xam ne Mbaye Gueye leer na ni moo ñëpp xam nañu moo daan. Mbaye Gueye ñoo fanaan ñoo fanaan ba bët set benn éponge ba bët set ñu jubal géej géej musée musée di fa jël air ci fajar gi mu ni ma kii dinaa ko daan mais man est-ce que dinañ ma jox jël la. xam nga moom aussi am na ko yàlla may quoi. nekkul woon mbëru kase. déedéet eh, mu ne ma dinaa ko daan mais li ma jaaxal kay mooy est ce que dinañ ma jox jël hmm. effectivement noonu la làmb ji demee. avant muy bëre la waaw ngi tëdd trois heures di matin la ñu tëdd yeewu six heures. xam nga ku nelawuñu sax mbéy mi taxul nelaw combat am du du nelaw dañuy toog bu bët set bu ñu tàggoo ma ak moom ba bët set hmm. léppam daal maa ko xamoon. te ba léegi amul kenn koo xam ne nettali naa la nangam wala nangam. waaw tey day soog gënte parce que même ñu dañu gëj ñu gisee ma ak moom trop. Mhm. mais boo déggoon ni dimanche muy bëre maa ko yóbbu laa mujj. yàlla moo ñu boole depuis boobu neuf ans laa am te ni ñu boole Kër Fallaay laa joge de maa ngi jóge sama toolu papa yore saako ñax. Mhm. dajeeg moom tali bu mag. ma ko grand ah moom boo booy fàllaay loolu. Mhm. ma ne ko gën a am na benn mbër boo xam ne daal bu fekkee bëriwuloo ak moom di nekk champion boo xam ne ni benn mbër mosul am succès bu toll noonu mu ne ma boobu ban mbër la ma ne ko Papa Ndiaye bu caaro yi bu fekkee bëriwuloo ak moom daal di nga nekk un grand champion. mais gi li yàlla lay def rek trois mois lañ ci teg Papa njaay gaañu waaw mm. ah, ma xam ne kon nag li mu waxoon ñëw na. lu tax lu tax nga waxoon ko loolu. Papa Ndiaye neexuloon a daan te dafa amoon moyen sëriñ. daa amoon ñaan. waaw ba pare am fit. te point fort u Mbaye Gueye moom point fort la. Hmm. faiblesse su Mbaye ko quoi. waaw non non point fort u Mbaye ñoo bokk ay fort waaw ba pare taay hmm. te kële dafa amoon fit mën a xeex encore te moo moo jiitu Mbaye Gueye ci làmb. waaw <laughs> ah, ah, Babacar plateau bi nee nañu maam góor gi moomu boo mënoon a fexe ba maam góor gi bàkk lu gudd lu nit ñi dégg mhm. dinañu neex lool mhm. ndaxte maam góor gi dëgg la ci poète la hommage la nekk pour Mbaye Guèye mais maam góor gi mbay Guèye benn la nu woon waaw foo fu maam góor gi doon dugg ci làmb Mbaye Guèye ngi ci ginnaawam topp ko mu nekkoon magam ñu dégg kàddu yooyu booy làmb wax ci combat Mbaye Guèye ak Double Less dëgg la ah, mu doon xale boo xamante ne ni noonu ngeen koy mu mag léegi moom moo nekkoon moom ngeen gis moom Mbaye Guèye noonu bi Mbaye di échauffé ci contre Mohamed Ali mhm. mu nekk noonu ci wetam ah xam naa ne li nu war a wax yëpp ci Mbaye Guèye mooma bari na mhm. Mansour li nu war a wax ci Mbaye Guèye du jeex njaate boobu mu wax waaw lu mu wax dafa waroon a bëre moom waaw njaate njaay boobu moo jur yaayu moo jur yaayu rëg rëg rëg njaata njaay njaate njaate waaw moo jur la woon moo jur yaayu rëg rëg kon kay rëg rëg dafa bi waaw waaw rëg rëg yaayam yaayam njaate njaay moo ko jur njaata njaay morom mu ñëw mbéy gay la woon mais yooyu guddi ak ñoom boobu nekk caaro yi ci biir ñoom papakan mais boobu papakan du favori ci biir caaro yi parce que boobu njaata jeexal na mbapat yi daan na champion fii bay dëkk ñoom Robert te ba ak seegul mbéy gay mii ñu moom la ko booy làmb doon wax na ko da nga war a bëre njaate te boobu njaate élément dangereux la. Hmm. waaw. waaw waaw. ndeysaan noonu demee. ah Mansour lan ngay wax. non. Euh, parce que Mansour bu fàtte da laa invité woon. waaw ah. l'œil du tigre tey. waaw def tuuti Pikine. Hmm. yow ak Eumeu lii am mais bàyyi woon quoi. Ah. d' accord. Bécaye parce que hommage. waaw mais booba làmbal la ñuy wax. dafa tombé mën a bëri. dafa tombé la ñuy wax mais tey nga wax lan. béykat yi béykat yi. ak làmb ak li nga gis. li may wax rek mooy ñun ñëpp am nañu lu ñu metti ndax manqué nañu benn élément bu mag boo xam ne dafa dem mooy mbéygay su ma ko waxee ak su ma ko waxul lay dëgg ku doon neexal làmb hmm. def ci làmb loo xam ne si lu yéeme la lay dëgg dëgg ndax man fekk naa mbéy géey bien sûr mu toj làmb senegal indi fi benn affaire boo xam ne si engouement bu doy waar. te làmb dafa na woon à l'époque. mais Mbaye Guèye ñëw fi indi organisation boo xam ne si loolu ñun fekk nañ ko. ñu nekk ay xale yooyu jamono bu Papa Diop de bëri ji arène Sénégal la di bëree bu ma ñëwee ma nag Mbàkke yàlla na ko yàlla yërëm. ak Balla Beye 1. dañuy wax ni du dugg ci oto bi. Mbàkke ba. Cerno Ndiaye mi moom mujj taxoon ni yi ñu ne xale yi dee leen bàyyi ñu dugg ci làmb ci oto bi ndax bu ëllëgee làmb ji ñoom ñoo koy mujjee kon da ngeen leen di bàyyi ñu dem làmb ja pour xam li xew arène Sénégal bu fekkee ne dañoo bañ ñu bàyyi man ak Balla Beye ak euh, Mbacké dañuy déggoo dox autoroute bi ñëw ba Colobane bu ñuy ñëwee teel a ñëw ñëw ba Colobane bu ñuy ñëwee ba Colobane jaar biir Colobane dugg bi Fass dégg si aada Sénégal. Hmm? waaw bu hmm. bëri bu bopp ñu bëri ba pare bu ñu nee waa dañuy bàyyi porte yi ñu doon portaxul dugg xam ku daan. waaw <laughs> ñun booba noonu lañ doon def. bu làmb ji jeexee nag danañ ñu bàyyi après ñun ñu mën a dugg super. bi ñu si voilà loolu moo doon su loolu loolu moo doon suñu suñu kii. Euh, Bécaye li aboon Pikine moo doon Papa Diop dafa am ñu mu moroloon ñu mu moroloon ci làmb boo gannaaw sa falaay ba de suñu bàyyi da nga doon wax Abdou Ndiaye kolos Abdou Ndiaye nga moom nga gis démb nga ne ab ca dëj ca dëj ba waaw waaw nga ne Abdou Mbaye Alain Alain waaw a xeex loolu réer ci moom rek xool ko ci bàll bay bi bilaay dëgg Alain waaw noonu la meloon Alain nga ni naaru bu Pikine nga ne jaxate bu pikin day dëgg nga ne saa kees bi ñu tuddee saa kees bii waaw moom it pikin la nekkoon yaa ngi dégg nga doog a indi ay Ida Fall ay Samba Diagne yaa ngi dégg ay Mandaw Diouf Samba Diagne Sadio waaw man daw Diouf moom booy Ndiaga ñoo bokk ndey baay seetaan nga ko maa ngi moom a ànd maa ngi nekk xale bu tànn tàngal ne wala ànd Sadio combat boobu ndax ci combat yi ma daan yëpp eh, mu fa jógee ba mu fa jógee ba mu ko boole ci la ñu boole ak euh, Boy Niang kenn musu gis Boy Niang bu après ba mu jógee mu ngi noonu bàyyi boobu euh, euh, Pikine ak Fass ñu ngi doog a commencé bëri mm-hmm. di daje foofu sax Mansour naa la fi doog ñëwal Mbaye Gueye ak pap Diop ku ci nekk da nga faral sa morom. ndax boo fàttali ko temps yooyu Mbaye Guèye adversaire bi mu gënoon am bi gënoon garaaw mooy Papa Kane. waaw dañu bëree bëree bu metti deuxième bëree ba la ko bay Mbaye Guèye daan. troisième bëree ba am coow. quatrième bëree ba Pape Kane dóor ko mu daanu yaa ngi koy fàttali. dëgg la dëgg la. te ci biir loolu. bëree bi ngay wax diggante Pape Diop ak Mbaye Guèye xam nga lan moo ko indi. Mhm. boobu Duarte mu doon directeur Malboro. Diassi mhm. Duarte. faral mbay gi soxnaam faral Ambroise. dëgg la Ambroise dafa liggéey. Mhm. noonu la demee ak ñoom Ipongaare yi. effectivement Duarte day ñëw boobu kër du Ndiaye Ross lañ daan daje rue 1. Mhm. ak nday ñaare. Mhm. Duarte day laaj mbay gi kan nga bëgg a bëreel. boobu moo nekk boobu moo nekk ci trône bi. waaw mbay choisir. mbay par amitié la choisir pour bëri ak Pape Diop. 3 millions lañ ko fay. effectivement combat boobu noonu la demee. mu ni Pape Diop li ñu ma fay lañ lay fay. mooy ngor gi nga doon wax sax. ma ne ko mbay. pourquoi nga choisir Pape Diop parce que ñi may ñi fiy bëri yëpp moo ci dàq ba mhm. xëy na ñoo ko poids mais moo ëpp technique loolu moo tax mu nekk équipe nationale. Mhm. keroog ba ngay bëri ak Pape Gueye. Mhm. man fekkoon ma làmb ja dem Touba. sëñ Mbacke Soxna Lo moo ñu invité. ñu ànd groupe bañ fa demee. sama sama oto lu ñu yóbbu de. ma calculer pour seetaan si làmb ji génn tàgguwuma sëriñ bi ni damay seetaan si làmb ji. bi sëñ bi génnee ne ana Pape Dieng ñu ne ko Pape Dieng dem na mu ne ah Pape Dieng naka la ñëwee Touba di dem te te yeewuñ ko làmb ja du egg te Papa Dieng sax soo moytuwul du egg Dakar <laughs> bi ma ñëwee ba Diourbel laa coulé biel. ku wax léegi sëñ Mbacke soxna loo sëñ Mbacke soxna loo xam nga rek sëñ dañ fa ah. dem mu toog tëju deux de temps de temps. ah yooyu loolu la tax a dem. waaw xam nga rek bu ñu xale bëgg làmb rek. Fass boobu boobu Pape Gueye mhm. te dem ni mën naa ñu seetaan si làmb ji. Mhm. toog nañ fa pendant deux heures tegal nañu lépp de xam nga si boo ñëwee lépp lañ lay tegale dara manqué wul mais mu toog deux heures de temps trois heures de temps gisuñu ko ma fex sama fex génn rek ni damay dem gars yi ni ma Pape Dieng ku fi ñëw da tàggoo hmm. ñu yeewi la ma génn dem dégg bi sëñ bi ñëw ne ana Pape Dieng ñu ne ko dem la mu ne fu mu dem ñu ne ko làmb ja mu ne koy bëree ñu ne ko Mansour Diop ak Pape Gueye mu ne làmb ja du yegg hmm. <laughs> dugg Jurbel laa kuule bi xam nga oto bi keroog Euh, fan laa fan laa dem. kër Ablaye Gueye moo doon procureur Diourbel. bi ma ñëw expliqué Ablaye Ablaye ni ma yow def nga erreur bu rëy téléphoné ko. ni ko señ bi Pape Dieng de ngi nii. mun ko ah man dama génn di laajte ko ñu ne ma dafa dem Dakar te tàggoowul mun ko waan dafa coulé bi yàlla xam nga sëñ Mbacke dafa mun reetaan. Mm-hmm. maa ngi gis muy reetaan ci téléphone bi. Mm-hmm. mun ko nag may jàmm rek ko koy daal man ne ko sama oto bi kule biyal fii <laughs> nga naan ma jàmm bi dina ma fay oto man loolu moo tax setaan ma salaam dëgg la dëgg te làmb ji comme li nga wax Mbaye ñëwul Pape Diop ñëwul mais bi mu nee Mbaye Gueye pourquoi ngay bëre ak Pape Diop donc Mbaye Gueye di daan jóge Dakar dem di seeti Pape Diop Pikine ah wax naa ko Mbaye Gueye Pikine la naan ngembo mhm. donc da amoon na Pape Diop affinité gis nga seen bëre ba respect mutuel lañ joxante kenn songu sama danoo léewtoo rek dañu léewtoo boobu rek am na sax te combine ñu de sore wala léewtoo sore wala combine ñu bekaay cest à naa làmb ji bekaay Demba naa bekaay waaw ah. san naa sa ñaari combat yëpp ah. uhuh. li nga ci wax nii ah. ñu bari wax nañ ko mais xam nga lan moo amoon uhuh. respect bi ëppoon xam nga ku ci nekk sa morom nga faral respect ci lan foog leer uhuh. mbay Guèye respecter les qualités de Pape Diop. moom la gëm Pape Diop respecter les qualités de Mbaye Guèye. Mhm. ku ne xam nga sa qualité moom soo fa jaaree mu daan la ñu koy éviter te balaa ma jeex. Mhm. lii mooy problème bi. lii mooy problème bi moom kàddu mujj bi lan lay doon. parce que temps bi mooy mooy mooy cant mën nañu fee fanaan ci gërëm ba léegi. waaw euh, sunu beneen boo xam ne lu nekk defal na ko mbay Guèye Pape Mayel Diop. Pape Mayel ah, waaw son na ci mbay Guèye lu nekk la daj ci mbéy gi ak Moustapha waaw jàppale ko bu baax daj ci lu nekk dañ koo nar ko na fàtte mais damay sant benn xale boo xam ne mbër la nekkul faas mais jar sant muy Balla Balla Balla Balla numéro 2 Balla Gaye waaw bu duubal lees bu doomu duubal lees vraiment euh, defal na mbéy gi teraanga bu nekk la mel de jàppale façon bu nekk ñëpp wan ko ni xam na ni moo baayam la woon démb ba tey générosité Mbaye Guèye bi ñuy wax. Mhm. bi dugal les def ji bi dañu ànd ko ñoom ñaar. Mhm. damaa toog ba caa ñu jël ñëw sama kër fa la ñu reeree ñoom ñaar wax la Mbaye Guèye. ñi xamuñu Mbaye Guèye. mas naa ko seeti euh, Fass Mbao ma ñëwee maa ngi ko fekk añ ba pare gars di nelaw man quoi grand lu xew fii mu ni ma non ñoom Alioune Fall Alioune Fall la toujours fi la fi nekk. Alioune Fall ma. Alioune Fall ma taxaw ñu ma taxaw ñu ma toj ma xaritam ma fekk toj làmb ja toj il ne se sépare plus. xaritam la. pour la kon pour dama la bëgg wax rek nii ban façon doomu aadama. gis ko tey. Mm-hmm. ni mu mel ci làmb ji ku gore la kii nag moom vraiment boo déggee ni muy waxee. Mansour euh, Mbaye Gueye moom kii dafa baax kii rek ko Mbaye Gueye ngi koy maa ngi koy déglu bu baax la. waa 2 dañ ko faan ak loolu rek. mooy mi may mi ngi may wax sànq ci avant ñu ci plateau bi. teraanga yi ma commencé defal yàlla xam wallaay fàttewoon naa ko looy dëgg la loolu mbaax moo koy def. wala surtout surtout Kantara de. waaw Adel Fall lay ndeyam te Adel Fall Kantara ko jur. dëgg la maamam euh, notable la ci dëkk bi de moo jëkk a génne euh, euh, secrétariat dactylographie moo ko jàngal jigéen ñi. ñu ñu commencé liggéey ba kenn du fa turam Kantara moo jur yaayam Adel Fall. ku baax la kii wane na ni mbay gi ku baax la. ñu ngi koy jaale Pape Diop di ko jaale daal Sénégal yëpp. mbay gi Sénégal yëpp dañ koy jaale. Sénégal yëpp demoon na ba ñi ko faral ak ñi ko faral ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg ndax jikko ji Moussa Gning mm-hmm. yàlla ko yàlla doon li wér amiin amiin dafa daj ci écurie Fass bu dafa ma jàppale tout fait pour Fass sama bu ma amee réussite ci écurie Fass mm-hmm. moom la ñoom ñaar ñooñu la woon Mbaye Gueye Moussa ak moom Mbaye Gueye Moussa ak Malick Gueye ñoo ma doon ñoo ñoo ma doon jàppale dëgg la day dama ci profiter pour lancer un appel mm-hmm. ci Abass Ndoye mi nga xam moo fi nekk dafa daj lu nekk dama gis ay ñaama woy écurie bi léegi dangam écurie bi la benn nit yor écurie mukk abaas dañ ko jàppale wul dëgg la on va s'organiser waaw ah oui pour ko daañu ko jàppale surtout man ña ma jàppale woon mm-hmm. wax dëgg bu amee ñu toll noonu ñu ko jàppale wax dëgg moom résultat yi ma amoon mais il est seul mm-hmm. il faut ñu jàppale ko il ñu jàppale ci loolu daañ ci sonn daañ ko dox pour nit jàppale ko ndax li mu war a liggéey ci équipe mu liggéey ko. kenn man ñaare ko ndax vraiment je tenais à à remercier Balla Balla Balla Gaye parce que dafa dafa jox Mbaye ay somme d'argent yoo xam ni. noonu la mel mbër yi ko yéene génne jox ko seen. Euh, moo tax muy am ay ndam yu rëy. gis naa fu mu jëlee avance. fa mu toog la ni lii Mbaye Gueye ko moom. day dëgg ci mbërum ah, làmb généralement avance am bu ko jëlee du ko sax nangoo laal tant que eggul ba mu ci saafara. waaw waaw moom nangoo def loolu. loolu jëf ju baax la. yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay ñu daal képp koo xam ne dafa nga ñu lu baax ah. dañ koy wax dëgg la ndax ñi nga xam daaw ngi def lu baax jàngi lu baax dangay dëgg la yéen ñaar nag li ngeen defal mbay Guèye rëy na waaye li ngeen defal làmb laay wax mhm. vous êtes en train de faire un excellent travail dans l'arène jërëjëf Momar kii moom euh, yow sax bibliothèque la chance nga bi nga amee Pape Dieng macha allah chance la ci yow bibliothèque mais yow tamit euh, yaa ngi liggéey ci làmb ji liggéey boo xam ne. Mhm. ñun làmb dañ ci sonn. Mhm. loolu dëgg la ba nga xam ne bu man gëj naa làmb. Mhm. mais du ma tardé làmb. mais da nga koy waaye yaa ngi ci xew lépp kii. léegi la sax bi nga xamante ni léegi dem naa ba mu tuumal ma ko wax mais ma daan def bu defan mission ba pare ma woo ko mu léeg-léeg moo ko eh maman maman lu ma defati. <laughs> lu ma defati <laughs> man ko noonu da ngaa wax lii wala waxoo lii. carrément donc. autocritique noonu la ma doon def. loolu mooy critique. bu ma defee émission ba pare. moo ma ne ma nangam ak nangam ak nangam waroo koo wax. critique xam nga rek man euphorie bi jàpp ma mais mais tey aujourd'hui euh, jàppale nañ la ci li ñu mën ci li ñu xam ba tey ji amul lañ lu ñuy reproché macha allah. dëgg la tu gères bien le micro tu gères l'entourage du micro vraiment macha allah vraiment. Mm, euh, daal ñu ngi lay ñaanal tamit jërëjëf yàlla may la fan gu daan la wér. yàlla may la ko yàlla yokk la sa liggéey bi bu baax a baax a baax. jërëjëf Momar yow da ngaa baax. ci Bantamba tamit yàlla yokk bu baax. a parce que sunu sunu sunu chaîne la. seen chaîne la yéen a ko moom vraiment ñu ngi nekk remercier El Hadj Ndiaye parce que ah. plateau bu toll nii. bien sûr pendant autant d'heures ñu bàyyi ñu fii. ñuy wax ci sunu heure bi ma tëdd. nee ba suba bu leen deexee. ngeen wax Mbaye Gueye dama lay wax benn affaire li ma defal dafa bare. Ah. Moustapha Gueye sama jabar bu faatu daaw. ndeysaan waaw doom ji ko ndeysaan du béykat yi waaw waaw léegi nii suma doom bi nekk actuellement ni Dubaï mat yi mi ngi may wanaan ma papa parce que bi ma ko tàggee dem dafa jooy jooy yow da ngeen dem foofu Moustapha dafa bëri coloré Moustapha dafa baax wax la ni vraiment na jabaru Baba Sané doom voilà wax la ni loolu loolu lu rëy la Baba hmm. Sané yi Kiné na ko doom kenn mënul wax daal kenn mënul wax lépp mais Momar ñu ngi lay gërëm waaw Momar ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm tamit soxna Moustapha jaraaf bu baax kenn du moom kenn moo dëkkal mbay Guèye. waaw toppatoo. toppatoo ko waay. waaye nag waaye nag xam nga seen doomu bàjjan la. ah waaw moom kay. doomu bàjjan ak doomu nijaay la. xam nga lépp waaw loolu du a ah, ñàkk doomu bàjjan ak doomu nijaay la ñu ngi gërëm bu baax a baax. waaw jaraaf. waaw dafa bëgg ci téye bu mu téye Mbaye Guèye ak lañ ci daj. ah daf ko bëgg daf ko bëgg loolu moom daf ko bëgg dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm njaboot bi mu am ak Moustapha yàlla na ko yàlla barkeel amiin ndax mbokk dina sëy ak mbokk du def la ca war waaye jaraaf moom ci digganteem ak Moustapha Gueye ak digganteem ay mbokk Moustapha Gueye def ñu li ci war njaay waane nag mbay njaay cargaanay maamu jërëjëf Mansour jërëjëf Siraj Malick si dafa waxoon ci sëyu mbokk ne yàlla buñ ko tudd mm-hmm. buñ ko tuddee yàlla na am bu amee yàlla na baax ndax yooyu bu amulee rek mbokk yàqu lay dëgg Mansour maa ngi lay gërëm di la sant uh-huh. di la wax ni plateau bi fi ma dugal dafa xat uh-huh. mu aw ma fi doole moo tax damay <laughs> danaa góorgóorlu rek mais aw ma fi kattan waaw am naanaam ñii dañu nekk làmb waaw ba pare seetaan lu ne ci làmb uh-huh. bu ma fi doon taxaw di wax damay petit damay tuuti. <laughs> waaw loolu la dara. marqué ton ton temps toi. macha allah macha allah Mansour Diop rek dugg ci làmb ak tuusam. ak musculature beeg bi. Pape Diop jiital ko. maa ngi lay gërëm tamit di la sant fekk naa ko Italie. waaw waaw xale yi ba léegi ba may dem xale yi dañu boo demee. Piazza Duomo Piazza Duomo Piazza Duomo. ah Piazza Duomo Piazza Duomo. ca place bu rafet wallaay wallaay def nañ fa ba jàkkaarloo bu rëy bi maa ngi lay gërëm di sant waaye. nga may ma tuuti rek ma gërëm ay portion yoo xam ne mënul ñàkk. maanaam euh, maa ngi nuyu dégol waaw papa boo ñaa xaritu Mbaye Gueye temps ñooy ànd dëkk nag Mbaye Gueye lu yàgg di nuyu yaayam Anna Ndiaye lay ndeysaan di nuyu boo ñaa ak Assane maa ngi di nuyu bu baax mhm. di nuyu Pala Diop sama petit frère ñoo doon voilà merci beaucoup mhm. mu nekk sama waay euh, Pala ma jama sax laa koy wax waaw maa ngi nuyu maa ngi maa ngi nuyu Abdou Kandji moom it maa ngi koy nuyu sonn ci booy ñaa top mhm. nag entraîneur de boxe bu baax champion nuyu rakkam Kandji production ak Moustapha Kandji maa leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant di gërëm Pikine yëpp nag dakaay ma la wax benn loo xam ne si mun te ñàkk ma wax la ko mu nekk déy boo xam ne si biir Pikine mhm. bu rëy la ci ñun muy Samba ñun ñépp ci am pikin gépp ci am ndeysaan Samba Samba Sarr ca hôpital ba Dominique Samba ca euh, football ba ci yor cosaan Samba ci lépp ma nga ca man sama waay la sama xarit la nekk ca buntu ko ñoom Moussa Badiane la dëkk Samba Sarr dem dem bu metti pikin gépp pikin gépp am ci leen metti danaa dugg ak du ma dugg te am convocation ñu woo ko pour mu war a dugg ko mu dugg ñu ne ko yow boole wuñ la ci ndax farloo diw doo fi dugg mu ne am naa droit dugg ndax sama convocation ñu ne ko doo dugg ba ko mu daanoo cardiaque ba attaque mu dee loolu ku dëkk pikin am nga cul la metti barke yonent bi jërëjëf jërëjëf Mansour sama réalisateur bi Kër Samba saar la yendu tey muy Babacar ah, ñun ñuy ñaanal ñëpp alaaji mhm. ñu ngi lay gërëm jërëjëf jërëjëf Dieng yow tamit nii nga def rafet na topp lii mooy coloré Mbaye Gueye li nga wax fi wax yëpp du du du lu nu créé lépp yow ak Mbaye Gueye la ah, man xam naa ci dara Mbaye Gueye wax na ma ko bu dul pentu ñaar di ma wax ci yow te noonu nga may waxee ci Mbaye Gueye noonu la ma Mbaye Gueye di waxee ci yow Momar ñu lay gërëm yow nit ku baax nga yow nit ko intègre nga te nekkatoo président Fass mais yaay président d'honneur Fass te xam nañu jamono ji nga yore Fass fan la Moustapha Gueye tollu ak Fass tollu un lutteur comme Moustapha Gueye gérer ko yombul difficile xale boo xamante ne du mbër bërekat la non du mbër ah bokk ci Ndakaaru di booy Dakar ànd ak waa Dakar ah nga fexe ba mu doon champion doon leader c'est pas facile non non li mbër di moytu Moustapha du ko moytu talu ko su gëmu ko gëmul loolu li mu xam moom mooy mën na bëre bu daan façon bu ne moo tax bu lay daane tey bu subaa mu daane ko gëmul loolu li ko li ko li ko mbéy gi di wax sa yenn saa du ko def te day daan du ko def bi mu daanee Serigne Ndiaye Khadim daa ñëw mbéy gi mbéy gi ni ma may man sant ma ko lii de waxuma ko mu daane ko nii ah. sant kenn sant ko mu ne ma lii moo ko créé boppam moom la daaneel Lac de Guiers numéro un mu daaneel Lac boobu naa la fu mu loolu kenn musu koo gis wax la fu ko jëlee fu mu ko bëree ba bëri la mhm. ci xelam dem nee na ma Madiagne bi mu amee doole ba am doole Madiagne xaritam dañu mës a songu. keroog Madiagne ñoo ko jiital. Madiagne daf ko mës a songu nee na di ko jaay doole. Mm-hmm. nekk façon boobu la daane Madiagne ca la bii ko baax kër Madiagne la ko préparé de moog la guerre numéro 2. dama fa dem fekk Madiagne di ko xas ni ma kii def nga ne war na bëreeg Lac de Guiers numéro 1 pendant minutes te la guerre numéro baaboy dafa ñëw fel ko fel ko daan ko wax jam ko wax bi Moustapha ñëwee tontu na

ba mu nekk Tiger production waaw ah. <laughs> maa moom la woon moom la yàgg na mu nekk ku sérieux nag ku sérieux million bu nekk sonal rek million bu nekk jox nañ ko pour tëgg làmb mosul manqué un franc léegi da amul caaxaan du amul ah. caaxaan loo ko jox dina ko delloosi dina ko delloosi amul caaxaan ku gore la ku sérieux la ku la franchement ah. man yàlla dafa may ay rakk yoo xam ne waaw yu baax ay Pamel Diop ren ndeysaan Mbaye Fall Moustapha Gueye Abbas Ndoye non da ngaa neex a magoo nag non su ma da ngaa neex a rakkoo <laughs> neex a magoo danoo baax da ngaa baax rek da ngaa baax ba mar yàlla na yàlla Mbaye Fall tëgg Tyson Moustapha Gueye mhm. solidarité partage solidarité partage yëpp moo ko def moo ko def maak moom buñ ko toppee fi dañuy faral moo ko def moom Babacar nen moo ko def jërëjëf merci jërëjëf Alaaji Papa Dieng kon Mbaye Fall encore une fois jërëjëf tax toogal toogal pareegul euh, jërëjëf ci sa liggéey sa professionnalisme ah ñu gërëm la ci bu baax di gërëm ñëpp di encore jaaliwaat ñëpp émission ki nuy wax ci moom moo toll nii moo tax dina ñuy dem ba fi ñu toll bu nu mënoon mën nañoo dem ba six heures du matin di wax ci mbéy gi jeex wax ci ay kombaam du jeex di wax ci moom booy baabu daan wax du jeex mbéy lu ne géej la du jeex géej du jeex moom la géej daan wax ah, baabu géej mi ngi noonu kon ñu ngi leen di gërëm di gërëm aussi la télévision ci jàppale bi ngeen nu jàppale ba nu mën a def lii ñuy gërëm waa Bantamba TV gis nañu liggéey bi ngeen ci liggéey encore une fois may yëglee ni bu neexee yàlla dimanche prochain. dix heures midi bu dee neex na yàlla ci la nuy commencé njiinum Sénégal bi ngeen daan déglu ci rajo bi ñu def ko ci télévision bi ñuy ñaan téléspectateur gaa ngi koy réclamer de. ñu déglu ko ñu xool ko ci Bantamba TV et puis émission yu bari nag ci la ñuy doog a commencé nag bëgg liggéey ci lépp loo xam ne jëm na ci télévision télévision yi fi nekk ñu xool nan la ñuy def bu ñu leen mënta dabit ñu jege leen wala ñu romb leen loolu la ñuy ñaan suñu boroom yal na yàlla def ci réew mi jàmm te leen ko doon waxee rek mbas mi bari na hmm. wax naa leen ko Abdoulaye Elimane Dia kalaajo baaba maa la ko woy nit ku baax nit ku am teraanga waaye gi nga feebar bi bawu ko fi bawu ko fi ñim fi jëlee bari nanu lay dëgg def lu nu mën a moytoo ñu moytoo ko lu hmm, hmm. nu mën a moytoo rek ñu moy ko feebar bi baaxul te kilifa yi wax nañ ci ba sonn kon nanu delluwaat ñu tàllalaat suñu loxo sunu borom ñuy moytu tey ñaan yàlla feebar bi génn ci àdduna bi ndaxte nekk ndegam mi ngi ci benn réew rek dina tas ci àdduna bi bi kay di ñaanal tamit personnel euh, kii bi soignant bi waaw san santé ah, Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi lay ñaanal bu baax ak le président de la république ci lim ci def Macky Sall li nga ci def ah, le président yàlla na ci yàlla taxaw yàlla jàppale ba nga am ci ndam loolu mooy Sénégal nanu gën a juboo gën a jàppante ñu jàpp sunum réew mm. loolu mooy tax am réew jëm kanam mbokk yi ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf